bistajib boo jógee dugg maa huwa biw wa maa adnaasi salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. gannaaw bu ñu sant yàlla suñu borom tabaraka taala. julli ci yonent alayhi nu siyaar ku teew ci barab bi ku ne. dina ñaanal yàlla tey ñaanal suñu bopp ci barke fultu mbasum borom defal nu faju ajo mbir mu jub def nu dëgg dëgg taali bis borom Tuubaa mu mel ni fii sëñ bi dugg tey ponki lislaam juróom la moo mu lamaree yépp ñaan ci yàlla wax ci li koy suñu borom defal loo xam ni may na ko kóolute adduna may na ko sécurité àlaxira ñu wax na ci biir xasida gi nii defal na ma taar boo xam ni du ko bañ waaye bone ba xasida gay jeex mu dugg maa humu bi fa lay su ko defee rajab mooy weer wi jàll yonent bi yéeg ci dem jëli julli juróom sëñ Tuubaa tudd na ko sëñ Mudu ci njàng mi nga jëm tey saxbaan la ci teg weer yi ñu jeexal nga xam ni ci lañ wëlbati war xet lay ba tax ñuy jublu fii kaaba gi nekk ci fukki fan yak ak juróom dugg weeru koor sëñ Tuubaa ne diggante yi nga xamni ñoo gën rajab sahban ramadan ba ca topp mooy weeru tabaski wala nga xamni moy acc ñoo gën ci weer yi weer yépp mu ngi dajale ñoo ci gën borom Tuubaa lu ci doon lu né borom bi na ko jox hmm kon rabbi رب استجيب رب استجيب رب استجيب رب استجيب رب استجيب رب استجيب رب استجيب رب استجيب Rabbi Stajib rabbi istajib rabbi istajib rabbi istajib rabbi istajib yastajib lu muy ñaan lam la bëgg a wax mooy jamilu kulli bi jamaali rabbi istajib wala yeete yëpp doona dayrin samaan rabbi istajib ma waral baddihu habbiye jamaalan laa yabrahu rabbi stajib yàlla maa ngi lay ñaan mboolem ku mësa dugg ci lislaam wax baatub ashadu an laa ilaha illallah wa sallam rasulullahi tuyaabaam jox ma ko par rabbi stajib rek ngay jël ba mu jeex ma ñoo ko ñëw rabbi stajib ku mësa dugg ci diine lislaam wax baatub ashadu an laa ilaha illallah tuyaaba ja nga am suñu tubaa neen lañ ko dajale jox ma dellu ma ci rabbi stajib juróom la ponk juróom ñoo am baatu saxaadatu an laa ilaaha illallah julli juróom mooy ñaareel woor wooru koor mooy ñetteel génn asaka mooy ñeenteel aj màkka mooy juróom yu ponk yi jënd rabis fi juñ juñ ci nekk daawul mu junj ci loolu ku musa dugg ci diine lislaam wax ashadu an laa ilaaha illallah wa ashadu muhammad rasulullah tuyaabam jox ma képp kuy taxawal julli juróom sëriñ Tuubaa nee na suñu borom ñaan naa la tuyaabam jox ma ko rabbi képp koo xam ne weer la war ko defee tuyaabam sëriñ Tuubaa na na ko yàlla jox rabbi ku mus a génne asaka tuyaaba jala war a fay sëriñ Tuubaa nee nañ ma ko jox rabbi képp koo xam ne aj nga màkkatul mu kanam buñ la nangulee sëriñ Tuubaa nee nañ ma jox loola yooyu yëpp boo ko la mere muy tudd baati seere yi woor weeru koor natt asaka aj màkka ak woor ak julli juróom suñ tubaab dajale naa lépp téye ko man na ko man na ko jamilu aj rafet kun yi dajaleel na ma bi jamaali yu rafet yi ma la wax léegi wa amaan mu ànd ak sécurité ak kóolute saa bakkan nag diggante fii may waxee ba ba may tabbi alaxira lu may lor mënatu fee nekk sama adduna ba ci ñu am ne jamaa yàlla mi nga xam ne mooy sos du ne di créateur bi dajaleel na ma mboole bi rafet li ba pare def sama yaram bi wér ñu raaj kenn du mën na nga def yaa li baabi sukuuram axlaw bunt bu mujj góoru yàlla mosu fëgg ñu tëj ko sëñ tuwaaree bi ma ñëwee yàlla ubbil na ma ko xam nga fii lu jare deglu la borom bi bi mu yónnee rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne ko jaan ñëpp ma leen bind mom leen dama am tim ñoom yërmande bëgg ñu ta daje ubbil na leen juróomi buntu ko fexe ba jaar ci benn ci buntu yooyu di nga ñëw ci man bo ñëwee ma sowee la nga dem aljana benn buntu mooy sahabu an la ilaha illallah ku ko wax ku ne génn nga génn nga ci kéefar soo ko waxoon ci bis bi faatu ci bis bi doo lakk sëñ Tuubaa nee na ku mos wax ashadu an laa ilaaha illallaah ba yónnee Rasulullaah ak léegi tuyaaba ju la yàlla may dajal na ko jox na ko bu ci topp ko jëkk képp koo xam ne da ngay taxaw fan maanaam julli juróom foo ko mën a taxaw ne ci kaw suuf tuyaaba tuyaaba ju la yàlla nar a may sëñ Tuubaa nee yàlla dajal na ko jox na ma ko bu ci topp mooy saxru ramadaan foo ko man a defee ci kaw suuf tuyaaba ju la yàlla nar a may sëñ Tuubaa nee na yàlla dajal na ko jox na rabis tëjib ku mus a génne asak kon ko moom bay génne asaka bokkoo ci nee na la war a génne su la yàlla naree fay suñ borom jox na ma ko rabis tëjib ku mus a aj màkka nangul la suñ borom neen nangul na ma dees tëjib la ma leen na ma yooyu yëpp ku ma ko defal jémee ni lii bi jamaali aji rafet ji kulli bi jamaali defal na ma trans bu rafet boo xam ne kenn du gis sama gàkk mu defal ma kuur ci goo xamante ni kenn du naw leen teeg man wali yadayhi mu teelal ma nag sama mbir doonali sama kenn duuti gis ci man lor fekk jamono ngi am badiu aji fent ji nga xam ne lu xew moo ko xewal badiu may na ma moom aji fent ji li nga xeet yu rafet yoo xamante ni boo ko bëggee gis demal Touba boo génnee Touba doo ko tegati bët yaa yow mi nga xamante ni sa bunt bi rasulullah fi nekk ma defal la cant goo xam ne bi ma ko defee ba pare ci moo bil buntu yépp wa maha adna si wa ma adna wa ay salmi wa maha adna si maha uyobi wa ma adna jëkkër jooju wax. lépp luy ayib sama jëmb ji yàlla na ko dindi ko. amul góor jigéen mag ndaw ku mën a xool sëñ Tuubaa gis ci benn fox amul. waxuma la moom. waaye ñu mu jur xool leen ba keneen ñooy jeex doo ci gis kenn ko fote taalibe bu ma jox boppam demal ci sëñ Masamba demal ci sëñ Mandumbe demal ci Cheikh Ibra mbaa ko la neex seetal amul fot ñooñu ma la wax waxuma leen ñoom waaye ñooñu defar képp kenn mënta gis ñoom benn gàtt xoolal sëñ Salim Mbàkke fu mu fekk góor lu koo ko tilim tilim bu nekkee ci kooku ko gën ñëpp borom bi tabaraka wa taala maa far na samay ayib ba faarale ko koo xam ne noppi naa ci yow mu génn ci man tilib tilim génn ci man sobe awuma ko sama waa kër kenn yorutu ko mu teg ma ma taxaw teg seytaane mu taxaw mu ne seytaane songal sëñ Tuubaa seytaane ni tàyyi naa ko ndax ma ko songee du ma am ndam loolu jar na seetaat xam nga fi mu ne sëñ Mourou. wax kay foofu laa jëm mu ci kaw suuf tàmbale lépp yàlla defal na ko ma Adama asma asma kullaha tànn malaaka ëpp la jëm bind jinne yi ñu ëpp la lëm jëm ëpp la lim mujj jut ba noppi suñu borom favorisé la nga gën li ko yàlla ba a defal nag ko waaye du mujje yóbbu ko ci kër gu ñëpp bokk mi ajal ni ko dund si nu la neexee yàgg ko am ak ku la am waaye baal na fi rokk si lu aadama mujje iblis da ko fekk di ko ci biti baalu demal ci yont yàlla noonu miinaa yu manqué cinquante ans la fi def woote woote mu dara da nga fay xëy ni yàlla rayal ñëpp kooku arrivé wut. ah noonu nga koy toppee ba keneen ko ñëw ci yonent yàlla Moussa diggante wu Firawna yonent yàlla Daawuda ñoom Jaaluut ak Taaluut ku mu mën a doon foo Moussa samp sam dënd Iblis fekk la fa fël dënd ba pare daaneel. seetal wàll yi départ yomb na waaye suñu toile egg egg yombut. menn man lañu boole maag ñoom juróom at juróom-ñaari weer yu teg fukki fan juróom lu dem ba dégg si fu ma tegal sa tànk ci Iblis yuuxu. tek ñoom daw haraba kul man lahu sahaw ma dakk ko ma dakk muy daw ba mu jikko sun borom liggéey doto mo ay san daf koy naagaloo moom xam nga kay brik diw ñepp wër la nga ñew wala mu sàjj nga ko jakk def ah, tay na ma brik moom saa yu bëril no bu ma damay daan iblis nee na su damay nan ko dol kenen mais champion bi du ma dugg ci moom Iblis kay bëri mu ne non jëru ko damay daan rek. ay de gars yi bat batal ko mu yóbbu ko ci jiwu bi sëñ Tuubaa ne xaas loxo mu ne déri ci suuf mu ay sëñ bi ne xanaa si du sëñ bi sax mu ay sëñ bi ne la xanaa si mu daan. yàlla far na ci man ayib. génn na ci man sobe awuma ko. mun naa golo Iblis mi nga xam ne mooy dugg ci dënd góor leen den jaxase yu was yu si fii si dóori naa si xamidu man sant naa ki nga xam ne asamani moo ma aar aw ay dugg ci man jóge fen dugg ci man man du ma jóge fen dugg ci aw ay mu nekk man ba faw jàmm laay àdduna jàmm laay alaaxira ko ànd man moom ngay am tàllal na ma moom suñu moom suñu borom tabaaraka wa ci sama mbind yi ma def ak moom benn imagination maanaam mënta kenn mënta xalaat yàlla li may Sëriñ Tuubaa ci mbindal yi mu ko bindal lu ni toll amul kenn mën koo xalaat daf maa may dima may dima may ba àdduna jeex man bo àllaaxira bu nu demee ba sang yëpp teew 124000 prophètes wàllu yi teew daa la yëkkati ci seen kaw ni ku am ko mel nii kenn. tàllalal na ma moom ba tey. lépp loo xam ne doomu aadama buñ bind doon nga ko amoo ko Sëñ Tuubaa nee am naa ko moo tax am naa mbég moo xam ni day sax ba faw faw du amul fenn fu muy maag samay gaay sama diine nag moom laa leen bëgg a présenté ngeen xam ko sama vision laa bëgg képp ku ma yaakaar nga xam loolu ku ma àndal ku ne fii ma teg sama tànk foofu laa bëgg nga teg fa sa tànk lan la jaamu yàlla bu raxul dara boo xam ni kenn koo xamante ni jëmoo suñu borom mënoo cee soppi lenn diini sama diine man xaadimu rasulillah mooy jaamu yàlla mi nga xam ne moo bind nit ñi teg ko nag ci bëgg muxtaar mooy Muhammad rasulullah boo xamul muxtaar mi ma lay wax nag ni tay ndayam ni tay bàyyam waaye moom ëpp na nit ëpp ëpp na nit junni muhammad la tudd mooy doomi abdullah moo dirisi diine lislaam kii may wax moo tudd kii ma lay wax moo defar kaaba gi muhammadun muhammadun rahi sukul raasi koo naw ku ne ak foo ko mën a nawee rasulullaay mooy kilifa kooka yàlla na jàmm nekk ci moom teeg ëllëg bu benn noraange nekk ci moom teeg ëllëg ndeysaan مبدع لختم مخجل القياس jooju wax daa jar a seetluwaat. xam nga xam nga ñi nga xam ne dañu jàng comptable wala mathématique wala xeetu calcul woo mën a am dañoo gaaw ci loo jur ci saase bu nu xoolee suñu bët rek ne nangam la fi ne suuf si ni mu toll nii. am na ñoo xam ne ñaata kilo kilo kilo la boo demee ci géej gi xam na ñaata fekk ndox la diggante fekk asamaan xam na ñaata kilomètre la maanaam nombre doomu aadama yi Sénégal rek rek ñu ne 15 millions boo limee nombre bi ci at ñun la 8 milliards waaye suñu tubaab nee na man lañ mën tax li ma yàlla may nu mu toll. madda sama mbind mii moo ko bind sëñ bi nag di ko jàng lu geccal xeli way xiyaas yi mën nu koo xam ku la jox loolu mu ne ki nga xamante ni moom mooy puukare bu ëllëgee fa sang ya toog gaa yu tedd yi ñu xam ne ñii ñoo ñu baax ni dama suñu borom di yëg yóbbu ba ci seen biir tiimale ma leen ni yéen ñii ku ci mel nii mbaa ko am ku mel nii jox na ma jox na ma man ki bind nit ñi moom leen di leen fay jox na ma loo xam ne nit ñi amuñu lu mu toll ku bëgg jàmmi ëllëg baa mbégum ëllëg bàyyi li nga nekk te fekk si ma lépp ma ngi sama loxo maa koy moo sëñ Tuubaa foo ko amee mu ni sama diini jii ma doon jaamoo yàlla sama borom yàlla moo bind ni ñi yàlla moo bind waaye moo warale nit ñi may ma lu leen mayut bi ma gi ma gën a sopp rasulullah alayhi salaatu wasalaam ca la ma may loo xam ne benn nit amu ko nag muhammad rasulullah doomi abdullahi ak aminata muhammad borom makkatul mukarram muhammad borom midinatul Moxtaar kooku mooy kilifa ku yàlla bind ci kaw suuf balak ak jàmm waa ji bi ci moom tey lii daa waroon sax rek neex na loolu barakallah yàlla ñu fi yàlla dajale di sant téléspectateurs yeeg caméraman yeeg rajo yeeg yëpp leen ñaanal sëñ Mudu yal na yàlla gën a gëral baat yi barakallahu aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatu amiin yaa rabbal aalamiin jëf